Salut les amis de eSport TV, merci encore de la confiance renouvelée les gars, merci de vous des likes, merci de vous des abonnés, merci également de baisser des commentaires. Un plaisir renouvelé les gars, chaque fois de partager des informations et un box est fait pour le maintenir 14 régions du Sénégal. À nouveau le club ni di jajeufal ñi nek également ci l'hôpital et ci kër yi février yalla suñu borom fëgg seen bop ngay wër ak jàmm ñi nek ci kasso yi nga xamné aussi erreur judiciaire ak gi ñu deful mo leen fa yobbu suñu borom génn leen fa délawaat leen seen njaboot ñi déddu aduna suñu borom xara leen aljana fi daw ci kayité on avance ensemble dans la magie de eSport TV, l'actualité en continu Ndiaye actualité bi ñu fas yéene waxtaanee ki nga xam ne mooy donc Edouard Diolko moom mi dogooree Mendy bi nga xam ne actuellement ça bloque du côté de Milan euh, wax ci Bamba Dieng ak aussi Iliman Ndiaye li nga xam ne nag moom mooy seen prouesse ak aussi jéego yi nga xam ne def nañ ko si seen jongante yi am démb mais laata boobu ki nga xam ne nag mooy donc Vinicius Junior moom nag gannaaw ba nga xamee ne star yu bëri euh, ñoom ñi ngi wéy di sargal qui di Edson Arantes do Nascimento euh, du Roi Pelé mom nak euh, néna na bi mu dugulon ci coupe du monde bi dafa bataaxal mu ne but bi heureusement ba yow la ko tudé woon ndax euh, yow da nga mës nek nekk koo xam da nga may don jappalé ba ma nekk ci tolof tolof di ma envoyer message ma soutenir ngeen gis même image bi xamné ne même célébration bi la Vinicius def nee na ko nag à jamais duñ la faté do génn ci xel yi doo ci xol yi parce que marqué nga football aduna woon nga këpp et que tu resteras toujours le meilleur lolou la ko def ki nga xamné aussi nak moom donc ki di Didier Deschamps gars yi restera ou restera pas day des wala du des nak RMC xamal na né mom euh, amna na ak Noël Le Graët président fédération française pour xool ndax waw am déet tay tok wala day euh, dem lol dal euh, fani di ñëw di ngeen ci am li nga xam moy information bi nekk ci confirmation ou pas Didier Deschamps ñi nak di Argentine notamment Lionel Messi Leandro Paredes ak Angel Di Maria gis nga leen ah nañ leen sagalé fétal leen ci li nga xam moy coupe du monde bi ñu jël ak gato bi ñu bind Campeones muy champion du monde yi war ne ba légui ñom ñu ngi wéy di fete Enzo Fernandez bu Benfica nak nee actuellement déggoo acteur ak dirigeant yu euh, Chelsea wa Chelsea nak ñom nañ pare nañ pour fay club am lu ëpp 120 millions parce que loolu lañ ci doon laaj ak bonus yi pour mu daal di fay euh, ñëw signé contrat Manchester lañ doon wax na ñu ci ginnaw mais fan ak Liverpool mais finalement ñom seen proposition nekkul proposition bu concrète ki nga xam nak moy donc ki di Antoine Griezmann aussi gis ngeen look bu bees bi mu def mom nak dem na ci Atletico de Madrid ñu daal di koy sargal tatagal ko tatagal ko mom ak yenen joueur argentin yi nga ils sont champions du monde Sandro Tonali moom moom nag nee na kii di Ismaïl Benacer euh, waa Milan dañu war a fexe lépp lu ñu def pour mu daal fay toog ndax moom aujourd'hui cadre la ci équipe bi et que joueur la boo xam ne dafay apporter lu bëri Milan AC et jamono ji daal jàppale ni waa Milan muy joueur ñëpp dañoo bëgg lu dul Benacer daal di fay donc Martin Terrier di attaquant donc bu Rennes film de ne nii ou Tottenham nous ko bëgg nee nañ ndax style am dafa nekk joueur bu polyvalent de buteur le ba pare également joueur le boo xam il est partout a fépp beaucoup de gis donc style de jeu boobu la Antonio Conte bëgg donc style de joueur boobu aussi lay wut moo tax ñu Martin Terrier mon affaire fa daal dem wa FC Barcelone gis ngeen nag kii di Araujo bokk na ci liste bi gannaaw bi nga xamee staff médical bi permettre nañ ko mu commencé ñëw gis ngeen si également euh, ñoom Ansu Fati ñoom Ferran Torres et tout mais surtout surtout qui di Robert Lewandowski ou Lewandowski Golski ndax moom waru foo nekk ndax dañ ko ajoon ñetti match mais nag euh, beneen tribunal bi ñu defee appel dafa def mesure conservatoire maanaam laataa ñuy xoolaat ndax dañ koy dëggal wala duñ ko dëggal mën moo tax tey Lewandowski dina bokk ci nga xam ne nag mooy joueur yi war a jouer match Barça bii di ñëw ki nga xam nag mooy Ferran Torres moom nag nee na gannaaw bu mu ñëwee daaw wanewul woon carrément niveau am dëggantaan et que loolu noonu lu bëgg daal di coppi que mu nekk joueur boo xam ne ñëpp moom lañ gisoon yaakaaroon ko mu wane loolu la bëgg daal jëfee jamono ji kii nag di Sergio Busquets Javi Hernandez xamale na ne Busquets contrat am day dem ba juin mu daal di jeex mais nee na bu jeexee nag après nañ toogaat xool ndax day toog wala du toog moom mi nga xam ne nañ kii di Nasr bi bëgg a jënd Cristiano Ronaldo duñ ko bëgg a jënd moom it pour ñoom ñaar ñu nekk foofu seeni joueur et teg nañ koppar gu bëri bëri bëri ci table bi ki nga xam ne également lu bëri bëri mi ngi koy wane jamono ji ca Betis di Youssouf Sabaly euh, Sabaly nga xam ne nag démb il a joué également euh, titulaire def match bu exceptionnel ba tax gars yi wax nag laf cat cat parce qu'aujourd'hui Sabaly au top de sa forme kenn du ko Bamba Deng Dieng wala Ahmadou Bamba Dieng moom dem également wane na boppam dafa dugg remplaçant en moins d'une minute gars yi mu indi penalty penalty boo xam ne under mais ngeen di gis si di coéquipier moo ko daal di dugal di aussi mon euh, mi ngi am la joie de vivre mi ngi commencé ree di à waat am temps de jeu comme ni mu ko bëggee woon Iliman Ndiaye gaynde bëggul mbuum yàpp lay dundee ko moo di Iliman qui élimine tout le monde ah Iliman élimineur mën nañ ko tuddee noonu wala Terminator parce qu'il termine tout le monde moom Dal, démb gars yi moom lañ tabaat ko man of the match ndax ñaari you. yu am solo la daal di def moom mi nga xam ne waxoon naa leen ko avant ñëpp di leen ko wax sama man leen valeur marchande daal dinay doubler ba tripler fi mu ne nag bokk na ci cadre yi gars yi nag fi mu ne nii sax ñu koy plébiscité pour mu nekk ci joueur yi gën a taxaw fa nga xam ne nag mooy donc foofu ci championship Iliman Gaynde Ndiaye bi nga xam ne mi ngi wéy di wane boppam mais également kii di donc Edouard Ndiol ko moom de Goré Mendy xam ngeen ne Edouard Mendy gars yi jamono ji nak moom nanguwul ko prolonger ak Chelsea ndax li ñu koy fay ci xaalis daal dafa jàpp ne dafa néew lool ak dafa bëgg a tolloo Kepa parce que Kepa mënta nekk gardien bi ëpp li ñuy fay gën a cher foofu te moom mu nekkoon def ay performance am ñu doon wax ne Milan AC bëgg na ko waaye lii torof torof mooy Milan ñoom dañoo bëgg góol boo xam ne mën nañ ko teel a jënd mais aussi njëgam nekkul njëg bu cher cher cher mais nag loolu mooy problème parce que Edouard Ndiol ko moom mi dogoore Mendy du n'importe qui donc boo ko bëggee jënd da teg ci kopp gafa gi koppar gu bëri bëri bëri bëri bëri moo tax gars yi jàpp nañu fi ne ni moom c'est impossible que Edouard Mendy dem ci Milan AC ba pare bu fa demoon dañu bëgg mu daal di ñëw nekk remplaçant parce que sen gardien xam ngeen gardien titulaire bi actuellement dafa daal di euh, blessé muy Mike Maignan donc motax tax yaar yooyu moo tax gars yi jàpp ne seen bopp ah donc média italien yi ak ñom Fabrizio Romano japp ne c'est impossible presque impossible Edouard Mendy dem ci Milan AC gaay C'était les informations que je voulais vous donner toujours un plaisir de vous servir woy leen di like mais surtout woy leen di on avance ensemble dans la magie de eSport TV jaa ngeen